bon peut euh, xam naa peut du ma am temps pour ñëwaat. ah mais du ma amaat temps pour ñëwaat. du am temps pour ñëwaat mën naa poser directement question bi. oui vas y mais c' est sur euh, juste sur la carrière ah. que dafa yàgg ah déggatuñ la. Mm-hmm. Euh, ñu bëggoon a xam lan moo indi silence boobu. est ce mm-hmm. que si tu as kii comment s' appelle pandémie bi la wala daal. Euh, lan la woon wala activité yi parce que da nga nekk entrepreneur maintenant ah. <laughs> mel xëy na entrepreneuriat bi moo jël le dessus sur la musique ah, la waa daal wut rek wut rek mais euh, xaar allah jërëjëf maroon jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci. merci beaucoup Jean Maron rendez-vous à 21h pour le grand journal merci beaucoup alors Mbaye 20h03 minutes dañuy continuer waxtaan bi luñ naan wax teg wax taaj wax waabale surtout loo xamante ni que askan wi kenn ne la watul ñëpp ngi xalaat ba tundu <laughs> naka la mujjee ak procès fu mu toll ñëpp ni ngi koy xalaat. Eh, abi ñëpp xam nañ lan naka la mujjee. waa léegi nag abi ñun dina bëggoon xam tuuti ci affaire xaalis bi ko ndax yow. xaalis ah il paraît que dañ la proposé woon de l'argent. Ah. ci affaire bi loolu. naka la demee parce que abi mu nax mu am lu ko naqari bay jooy wax ko sénégalais parce que sénégalais yi retenir leen maa ngi jot ay yoo xamante ni gars yi bëgg nañ xam yenn détails au fait parce que tëboo tëb rek wax Habib ñun xam nañ la xam nañ sa ful la xam nañ sa fayda donc de ce fait euh, xaalis bi la doon proposé pour investir la fii ci corniche bi moo xam 100 millions 200 millions 300 millions ba 400 millions loolu naka la demee et puis paa bi lan la bëggoon ci yow. dangay loolu moom bu ñëwee da koy laaj xam naa da nga koy invité ci kër gi. Hmm? da ngay da invité ko. ah waaw monsieur Pierre Atepa Goudiaby bu fekkee ni euh, invitation ci l'émission kër gi vraiment. ñu dalal la waaw dalal la parce que man Sidaat bëgg naa la invité euh, nga ñëw vraiment waxtaan ak ñun ci affaire corniche bi parce que sénégalais même bu dul Aby Ndour sax bëgg nañ xam affaire corniche bi daal naka lay demee Pierre Atepa Goudiaby loolu moom Sidaat mi ngi tendre la main mais jox ñu quelques détails le temps am na surprise boo xamante ni que après buñ paree ñu ñëw ci surprise. surprise mhm. nga maa wax surprise bi. non surprise bi dafa neex parce que bañ dama bëgg nga tontu ma ba pare. <laughs> luy neex neex naa. dara du ko daax dara du ko daax bon Sidaat. oui euh, mhm. la. Mhm. di ñaari fan. te nag dafa am lenn loo xam ne dafa am solo. nit duy dox. yore bakkanam di dox nga bëgg koo gas suul. xam nga loolu mënut a nekk. Mhm. beneen bi si topp mooy que ni sam papa dafay wax benn wax bu am solo foofu nag dama koy tënk rek. parce que nag sama émission bi du place bi place bi bu ubbee damay ñëwaat toog fii pour wax waxi place bi. waaw de toutes les façons moom moom. ñun place bi ñun la ñoree gëmal ñun ñun ñun ñun taskatu xibaar yi noonu la xool ma place bi xoolal. ay love. <laughs> boobu moom xoolal bàyyi rek bu sedd. yaa ngi dégg sama papa danaan. Hmm. képp ku ñu xoqatal nga tiit. Hmm. àndook yàlla. dëgg la man nag loolu rek lay doxee. du question Aby Ndour ay fulla ak fayda de. juste j'ai une liberté. te gis nga Sidaat xam lan la ñuy jënd. Hmm. lii matériel. Hmm. mais nit ak i a ah mosuma fekkee fu ñu koy jëndee de. loolu de mosuma koo fekkee. ak jënd ba lu mu doon doon doy dayoo mosuma koo fekkee maintenant. li nga xam ne moom moo fi am. Hmm. yéen a ko njëkk wax yéen waa RFM. waaw yéen a njëkk man man information bi mi bii nga may laaj man yéen a ma ko wax ci ci El Hadj Ndiogou Diène. Hmm. <laughs> moom moo wax ma ko. <laughs> wax léegi. Eh. nga bëgg ma ne yéen yëgu leen ko yéen. Ah, on tukulóor couleur cim man dama bëri kuddu attention. attention attention attention. attention attention. non xoolal. mais mais rek du ma la bàyyi de. non Sidaat. du ma la bàyyi non xoolal dafa am. parce que ñëpp yoon nañuy la bàyyi. <laughs> ñëwal ñëwal ci détail c'est important. non détail nag du ma ci dugg. Hmm. xam moo tax détail du ci dugg. Hmm. mais c'est de l'information. non non non non c'est au fait détail bi xam moo tax du ci dugg. Hmm. c'est une affaire pendante à la justice. te comme. yàlla dafa dogal ni que yóbbu nañ ma. Hmm. ci ci ci ci ca ca fam fa nu ñu koy waxee fa mbaxane doone benn doone benn waay. waaw léegi dañu bàyyi borom mbaxane bisum bu ko am am mu teg ko. mais fan yële ca ginnaaw dañoo waxoon ne Aby Ndour jox nañ ko un an de sursis ba pare amaan ko deux millions. Hmm. ne da ngay tëdd trois mois. Mm. loolu amaatum ci suite loolu naka la demee. loolu loolu kañ la woon ban kañ la woon. Ah, euh, ci xibaar yooyu jàll. non non non dama dama bëggoon natt rek comme 3 mois de de tëdd la. waaw léegi du kon man maa ngi nii. waaw léegi boobu wala wala tëdd naa ko ba pare. ah, ah man de jaaxal na ma. moo xam ma ni su ma koy tëdd yaay tëdd genn wàll gi. dama la loolu moom leer na. acum ah, maa ñëw indaale sama mar la indaale sama satana. indaale sama sa sama kii nee na leen dem tëddi. sidaat xolal da nga gis ñoo xam ne dañuy volontaire ne la libéré ko ma tëddal ko. maa la wax li maa la wax li te kon noonu la fa demee eh, pardon même ndaw bëri client <laughs> Aby euh, léegi nag dama bëgg nu ñëw ci euh, yow jottali ma lii jottali ma lii jottali ma lii léegi nag damay ñëw ci euh, ci surprise bi surprise bi nag lii laa koy commencé damay teg lii damay teg lii damay teg lii ndànk rek dox ndànk dem seeti Aby Ndour bu ko defee rek nga xam ni surprise bi mm. ki ko fi indi ak ki ko fi teg laa bëgg moom nga jot ko en direct Attends, c'est parti. Attention Attention xam nga li baaxul li biir bu metti la. yàlla guddal sa fan. attention. mais qui a donné ça. oh là là Abi. c'est de la part de. c'est de la part de monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye. oh kooku maa yaayam. sa sama papa. ma yaayam moo la envoyé bouquet fleur bi. nee xam naa tey la sama doom di kontaan. ndeysaan ndax euh, bëggul lu dul fleur. dëgg la de nee na du ma ko yónnee un <laughs> du ma ko yónnee deux millions damay xool lu ma gën a bëgg. muy bouquet de fleur bi. monsieur Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre du Sénégal. ndeysaan moo teg lii si sa loxo. ndeysaan ne vraiment tagal ma ko sama kanamu doom. nga joxal ma ko ko. ndeysaan nga wax ko ne ko sama xool seet na. c'est l'ami de tout le monde. mais avant tout monsieur le ministre asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ni ma xanaa xam nga dama ñàng nag li nga may gis nii. <laughs> yaa baax Ndiaye. mais ma maman. yaa baax Ndiaye. Euh, xam nga dafa am loo dëggal. ndeysaan. Amadou daf ne la Serigne Mbacké nga kooku sama doom la. wallaay sama doom la. musuma woowee abi voilà bi ma ko yónnee si la dama ne ko joxal ma ko sama maman. ndeysaan ndeysaan. je suis fier de merci beaucoup. Euh, tey ki doon wax. ndeysaan. wax noonu. bu mhm. Aby Ndour waykat. ndeysaan. c'est l'homme Aby Ndour avec grand H. ndeysaan. dama woo Coro léegi ni ko est-ce que yaa ngi RFM mu ne ma yaa ngi déglu mu ne man ko déglul RFM. ndeysaan. man ko tey la famille Ndour. Mhm. dañu war a cotiser wu. ndeysaan. décorer àdduna. ndeysaan. parce que dafa am loo wane tey ci sa discours. Mhm. xam nga man yàlla dogal na. surtout mhm. li ñuy jaxasoo jaxasoo. Mhm. seen papa laa gën a mun naa ko waxee noonu. bon yéen a bokk xombal. très bien. chaque gàmmu. ñooy dend bi man ak moom fanaan gàmmu sëñ Mbacke mat ba bët set. ndeysaan. mu daan ma wax ni balay sama xol di sedd fu ma gis Youssouf gis la ci wetam fu ma la gis gis Youssouf sa wet. macha allah. ma loolu ma di ko waxtaane Youssou assez souvent. Mhm. mais daanaka mun a wax ne xamuma seen famille. ndeysaan. yow Youssou. Mhm. pratiquement Bouba. Mhm. bon Bouba moom c'est le c'est le playboy de la la famille mais tey bi nga waxee kenn ku nekk jaar-jaaram. da ngeen amee njukkal ñaari nit. bi ci jëkk mooy seen waajur. wallaay wallaay. fi ñu leen juree. ak ni ñu leen yare. wallaay wallaay. kii ci topp mooy Youssou Ndour parce que taaw dafa am solo ci. wallaay wallaay moo taaw lépp. deex na mm-hmm. te danga nga nii ni. Mm-hmm. nit lu mu def lu dul fonk way juram. tart mm-hmm. na. dëgg la biñ nga waxee xale bi noonu ngeen ko bugguma dégg loolu. abi man gis nga suma waa kër même bu ñuy waxtaan yenn yu xaw a ñaaw. su ma ñëwee ñu noppi bu ma kenn nettali lu bon. wallaay wallaay baaxul bu ma kenn nettali lu ñaaw bugguma ko dégg. donc dama dégg discours bi nga tënni tey. Mhm. damay wax sama waa ni leen ku am ay doom. Mhm. ñëpp nga bëgg. ndeysaan. ku takk ay jabar ñëpp nga bëgg. dëgg la. mais la ci kenn di def ba nga teg ko foo tegul ñeneen ña. Mhm. moo ko liggéeyal boppam. loolu dëgg la. c'est ça la vérité. dëgg la. donc tey jii écouter l'homme. ndeysaan l'homme Abidou. jërëjëf du woykat jërëjëf Ndiaye <laughs> le message était jigéen ñi dama yow ak Kumba Gawlo. ndeysaan jërëjëf ma ko waxee sànq. ndeysaan macha allah. ndeysaan je jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye kontaan yow xaritu ñëpp nga. merci fexe nga ba nekk xaritu ñëpp. Mm-hmm. te loolu dafa jafe. yow ku mm-hmm. ayee dañuy lay gis ci mbiram. sama mm-hmm. yaay dañuy seetaan bés am na dara lu amoon TFM ñu koy seetaan sama yaay ne kii ku baax la. mu ne dama koy gis si ñu bopp yëpp. laa koy gis nit ku baax la ku ayee mu wuy ji la. te loolu njaay yombul. muy sa woyof may. danga dafa am koo woy. Mhm. naa ko ci album bi. Mhm. bu Ousmane Tanor Dieng. Eh, sama papa la. dugal ko mu ñëw nag. xoolal man ku xam na ni. ku nekk xam na ni. Mhm. Abdoulaye Wade mooy sama baay. ci waxin parce que ci mbokk sama cousin. mais mooy suma bàyyi. surtout politiquement. mais ñëpp xam na ni ñaari xarit laa amoon ñu nekk ay mag ay référence ci man mooy Amath Dansokho ak Ousmane Tanor Dieng. Tanor su ma waa kii yëpp xam nañu naka la fañ la eggoon ci man ak fan laa eggoon ci moom. naka baax Dieng. donc non nit ku nit kenn melul ni moom. un véritable homme d'état. bu ma cëppi cëppee rek mooma. mu jàngal su ma cëppi su ma cëppi cëppee Ousmane la. su ma rawee samay maas Ousmane la. wallaahi su ma su ma su ma su ma tëddee ci kër. ba yandoor usmaan la yal na ay yaxam sedd. àjjana yal na ko sunu borom teeru ci àjjana firda Ousmane sama usmaan ba ma koy xam 18 ans laa xam gis nga way bi nga teg dama koy déglu lu ëpp fukki fukki yoon ti saa yu ma ko déggoo damay jooy. bi ma nekkee ci jafe-jafe yi nga ma doon tudd. Mhm. dama toog Mamoudou mi wax naa ko dama toog julli. Mhm. di julli toog tax dafa am sama néeg fenn fu may teg di julli mais bu jooy de wax bi ma tegee di julli ma julli ba mu yàgg su ma koy defar ay ñaan lixlaas sama xel bi ne yar si moom rek ma jooy may wax man kese may wax ak sama bopp wallahi azim ma ne ko yaa ma sore kon kenn duma laal mhm. billahi man maa wéet kenn wéetul man maa wéet parce que ku mel ni moom dootuma ko am abadan wallahi azim kooku sama lépp la woon Ousmane su ma ko jàkkaarloog moom di ko wax lu ma lu ma naqari. Mhm. day jël tànk yi di ko teg ak a tegalaat. di ko teg ak pour wan ni que li ma koy li ma naqari da ko naqari. Mhm. kooku sama lépp la moo gën ci man. moo gënoon ci man Ousmane li mu def ci man yàlla na ko ko sunu borom wan ci àjjana. amiin Ousmane ma woonalee ki ma gën a bëgg ci àddina muy yaa Rasulullaahi. ndeysaan Ousmane yàlla na ko sunu borom teeru ci àjjana. may kër yóbbu la ma ma defal lépp su ma cëppi cëppee. rek Ousmane la ba pare ànd kook dal man sama dal gi ma ànd nekkal mhm. sama tekk gi ma nekkal ak sama franchise bi ma nekk mais dangay xool fi ma jaar ak ñi ma àndal ak kan laa topp du ma réer mhm. Seydina Maam Alassane la yal na yàlla yokk leeram xalif général des Layènes sama papa la woon kon man am na yoo xam ne waruma si daat mhm, mais abi abi ndeysaan allo abi naa xam nga dafa lu ma lay wax ci Ousmane muy lu ma jàngal man dama gis nit yoo nga xam ne daf leen a de tout pièces. ndeysaan muy benn. Mhm. ñaareel ba. Mhm. mu toog ñuy tekki deram loo nga xam ni. il suffisait que Ousmane ubbi gémmiñam wax benn kàddu ñooñu kaso la fanaan. ndeysaan mais day koy muñ. wala quelqu'un bon elle est entrée elle est mais mais monsieur le ah elle est en de de pleurer de nga nax sa doom. parce que xam nga rek voilà am. c'est normal gis nga Ousmane. am euh, jox la mouchoir nii parce que xam naa abi voilà teel nii rek. nga abi moom. Sidaat mi ngi mi ngi nag de. waaw waaw mais dina jeex non non euh, ku mu génneel rek. damay terminer ci Ousmane ci benn affaire. day gis nga je pense avant muy décédé. Mhm. dama ñëw bu buntu këram. ndeysaan xamoon naa ne nekku fa ma nga Paris. Mhm. ma yónnee ko message. ni ko je sais que vous n'êtes pas mais je viens en pèlerinage comme je le fais depuis près de vingt ans. mu daal di ma tontu de ma sacré jeune frère. moo jeune frère rek la ma daan woowee. ndeysaan. donc ku mel noonu. ma xam tuuti ci relation ak Abi. ndeysaan mu war a nekk un modèle pour la jeune génération. ndeysaan. donc encore une fois Abi maa koy encouragé. ndeysaan vraiment. parce que am na loo wax léegi si daal. Mhm. abi mënoon lu toog di di woy sama baay di woy sama yaay di woy sama mag. moo tax ma laaj ko ko. te duñ ko wàcc. wallaay ndeysaan. xam nga ko am sa doom même su borom duñ ko wàcc. Mhm. mais dafa fas jom am fulla am fayda ci boppam. ndeysaan. yàlla na ko yàlla taxaw. amiin. en tout cas yow nag bu yàq émission xam nga lu yàq émission bi. ah xoolal Sida déglu rek bul yàq émission xam nga yàq émission. non ay détails yooyu ngay dugg affaire naa ci glace comme ñaan ngeen ma ko. bàyyi ko tribunal parce que voilà bàyyi ko tribunal ngeen wax ak abi la vie abi institut. ndeysaan ndeysaan ndeysaan non non non non fu foofu nañ koy tàmbalee. gis nga bi Ousmane di génn àddina dañuy ñëw tuuti ci bi Ousmane di génn àddina. noo ko dundee yow. veille boobu. Mhm. dama dimanche la dama nekkoon suma kër yaay. Mhm. parce que weekend yi sama kër yaay la ñuy nekk. Mhm. ma ñibbi sama kër tëdd mënuma nelaw. lu ne laa def mënuma nelaw. ma dem julli mënuma nelaw. ni bi man dara dara daluma nelaw. fekk chaque deux jours damay woo fili fili. muy ñaareelam. ma ne ko petite maman mu ne ma ma ne ko naka papa mu ne ma moo tane na de saa yoo wootee ma ne ko ma ne ko sa doom woote na. mu reetaan ma ne ko ok ma yeewu ma ne ah, xaaral ma dem def sarax. ma woo suma jànq bi ma ne ko demal jënd yëpp mu jënd lu ne. Mm-hmm. ay suukar ak mbiskit ak tout. Mm-hmm. ay yaay dafa dee ngeen ma koy nëbb mu ma lan ngay wax ni ku wax ma woo Mamadou woon mi jàkkaarloog man. Mamadou woon a baax mhm. ak a mën a def lu rafet. ak a mën a xam lu rak Mamadou. Mhm. lii moo lay won ni Mamadou nu ma toppee. Mhm. xam nga li ko indi ba fii. xam nga lu bari lu mu war a dox. ndax responsable ci lu bari. mais lu ma def Mamadou su may def clip sax Mamadou day dagg yitteem ñëw ci man. ma woo Mamadou ma ne Mamadou mu ne ma ma ne ko lu xew. mu ne ma abi tout le monde m'appelle mu ne ma xaaral ma woote ma xam rek ma yuuxu ma xam ne que c'est fini parce que ni information bi demee c'est fini ma woo Mangane muy secrétaire u Tanor ma ne Mangane ma ne ma mooy abi sunu sama mag bi dem na ah keroog wallahi yàlla rek ay buur ndeysaan Ousmane Ousmane moo ma bëgg man ba ma xam ne que Ousmane daf may xool ci bët ma xam ne kii ma jàkkaarloo daf ma bëgg <laughs> Ousmane daf ma bëgg ma am 18 ans mu bëgg ma wax Youssou indil ma abi. boobu mi ngi présidence Ousmane ma dugal présidence. comme comme sama papa Serigne Mbacke euh, Ndiaye moom mu dugal présidence. Sidaat. waaw ku nekk ku nekk ak sa seede rek. Sidaat <laughs> ma Maodo war a ngi nii sama wet. mais Sidaat. waaw. xam nga lu tax euh, c'est important ñuy wax nii ci Ousmane. Mhm. dafa am ay qualité bu ko fi nit bàyyee. te mu nekk nit koo xam Sénégal yu bëri xamuñu ko woon damay cité benn exemple te abi moom laay jël témoin wu la wan moomu toog mhm. Ousmane boo dugge bureau dix fois dans la journée wala nga dugg salon dix fois dans la journée dina jóg dix fois tase ak yow dina la accolade dix fois dina la récompense. te du la du la nuyu mukk toog. jamais mën a doon bu la bu la nee càpp jóg jóg na taxaw. ak bëri respect léegi rek ngay gis ministre booy dugg bureau. c'est un homme <laughs> kenn du moom Dieng Saala kenn du moom kenn du Ousmane benn yoon rek laa mos sa sentir nii sànnale pas chez Ousmane dama ñëw kër ga ñu annoncé ma ma dugg si dugg naa bay ëgsi ci moom mu sëgg fixé wu ne lu musul def ci àddina ma daal di ne karas karas sama tànk ci karo yi mu siggi ne ma eh je me ferai tuer là di jóg mais voilà un homme de dimension exceptionnelle yàlla na ko yàlla xare àjjana mm. njaboot gi mu bàyyi yal na ci yàlla teg loxo yàlla na yàlla def ba la jeune génération mën a roy ci jikko Ousmane Tanor nit ku mën a waroon a mën a xeex te du xeex. <laughs> mais monsieur le ministre waroon mën a wax. monsieur le ministre. oui man bëggoon naa la poser benn question par rapport ci Ousmane Tanor Dieng. waaw euh, un homme d'État comme euh, Ousmane Tanor Dieng. tey ah. jafe na nu gis ku mel ni moom lu mu xam ci état moo xam li secret. ak li nga xamante ni yàgg na ko def ci biir état mais mu nekkoon nit bu humble nit boo xamante ni que bu nu woon tekk nit boo xamante ni que formation la. mais c'est c'est quoi loolu loolu laa bëggoon nga wax ma tuuti. loolu formation la. loolu yaa gis ci ay socialiste loolu formation la xam nga lu tax. loolu for mu lay wax nii loolu formation la loolu doo ko doo ko daj léegi loolu formation la. Euh, euh, ñaari yëpp dafa mm-hmm. ci moom. bi ci jëkk parce que man am na lu bëri lu ma daan wax ak moom. mooy éducation bu mu jëlee ci waajuram. donc muy lu naturel. mais bi ci topp mooy son cursus ñu bëri dañu jàpp dañu xamul ni wala ñuy fàtte ni Abdou Diouf dafa fekk Ousmane Tanor à la président mu jaar ci loxo Senghor. Senghor am lu mu gis ci Ousmane Tanor moom. ak kon formation la. formation Senghor la. ok mu jël André Sonko ak Ousmane Tanor taf leen ci boppam. donc am lu bëri lu mu def ci Ousmane Tanor. Abdou Diouf ñëw boo xoolee Abdou Diouf ak Ousmane Tanor complémentarité la ñoom ñaar dañu bokk ay jikko bokk dal noppi mën a denc secret am loo nga xam buñ ko waxul dëkk bi tàkk mhm. ñu bañ ko wax. gis nga koo kon tey mën neen xam ni mën neen wax ni kon bibliothèque moo dem ndaxte lu mu xam bëri na te kenn mësul dégg benn secret d'état boo xam ne génn na ko absolument Ousmane Tanor Djiboka li ñu xam te demaale ko un homme d'état moo ko mën def ci daal dama lay wax benn affaire ndeysaan non naa ko bàyyi foofu sax Ousmane mu bay di ràngeen ak Massamba Dieng